asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki diaspora bi man la Barthélémy Diaz may dellu si tey ci les vidéos de Barthélémy Diaz l'officiel ñoo waxtaan si ak yenn mbokk yi ci euh, réew mi ak ci ëllëku réew mi euh, lu ñuy njëkk a ñaawlu mooy taxawaayu président Macky Sall ak euh, nguuram taxawaay boobu nag lu ñu ci namm ñoom mooy bañ a organiser élection le 23 janvier 2022 mais biiralaat wax ci dama ne président Macky Sall ak nguuram dañu fas yéenewul organiser élection locale le 23 janvier 2022 te du ma waxantu euh, élection jël dat loolu euh, du faram fàcce da nga bëgg a organiser élection ci date boobu signe tamit euh, décret bu nga dul publier ci journal officiel boobu tamit euh, daanaka euh, du preuve que da bëgg a organiser élection le 23 janvier 2022 bu may njëkk a ñaawlu mbokk yi mooy président Macky Sall ak état du Sénégal ñu ngi violer lu ñuy woy la loi électorale mooy loolu mooy organiser élection moom la ñuy woy le code électoral code électoral boobu lu mu wax mooy at bu nekk dañu nar a am lu ñuy wooye révision de listes électorales te kooku c'est une révision permanente loolu article L39 du code électoral moo ko moo ko wax yokk ci nag nee na at bu nekk du premier er février au juillet képp ku bëgg a bindu ci liste noon nga mën a bindu ci liste de façon automatique ñoom ñoo ko def ñoo ko tey luñ ci namm ñoom mooy euh, di pousse xale yi ñuy dem di wuti ay carte d'identité ci commissariat yi parce que amul commission de révision des listes parce que su ñu demee ci commissariat comme du commission de révision dañ leen di defaral ay carte d'identité bind ci kaw carte bi que ñoom binduwuñu ci kaw fichier bi wante lu xaw a doy waar mooy président Macky Sall man waxuma ko audit du fichier moo ko wax audit du fichier nee na ba ñu génnee ci élection président bu 2019 ba président Macky Sall dëppee kees ba tey moom président Macky Sall ak ministre de l'intérieur am dugal nañu ci fichier bi lu toll ci quatre cent mille électeurs quatre cent mille électeurs ci période bu amul benn révision te ñoom ñoom ñoo xañ askanu Sénégal particulièrement primo votants yi ndaw ñi ñu xañ leen commission de révision des listes te loolu article L39 du code électoral moo ko wax te ça doit être des révisions permanentes euh, lu ñuy ñaawlu ñun suñu taxawee ñoom tey ñun nee nañu ñoom toog nañ ñaari at mënuñu organiser révision de listes parce que nee nañ nee nañu dafa amoon Covid dama ne Covid France organisé na élection locale Covid États-Unis organisé na élection présidentielle kon loolu mënul nekk benn prétexte te ci Covid boobu ñoom ñu ngi ci doon meeting di ci def ay euh, tournée politique ak économique donc kooku dañ koy ñaawlu bu ci des tamit. redécoupage bu ñu redécouper dëkk bu mel ni Kër Massar ñu def ko tey dañ ko def ci maa tey parce que dafa am lu ñu ci namm te su kanamee naa leen may ngeen déglu président Macky Sall mu wax leen naka la ñuy saboter élection euh, rax ci tamit dugal ci lu mel ni euh, redécoupage wu gox parce que gox bu mel ni Kër Massar suñ ko redécouper Kër Massar moo ëpp électeur que département de Rufisque lëmb 400 000 électeurs ñu ngi yeewu Kër Massar. ça veut dire am na 400 000 doomu Sénégal ñu yeewu Kër Massar ñoom ñëpp mënuñu dem élection tant que ñoom defuñu leen ay yeneen carte électeur mooy ñu réédité leen ay d' autres cartes d' te kooku ba tey président Macky Sall waxagul kan la fas yéene def lu mel noonu moo tax mbokk yi euh, dañ koy ñaawlu parce que démocratie ci li lépp a xaj Sénégal tey lu ñu namm ñun mooy changement changement pour mën a am foog mu ñu jaarale ko ci ay élection te nguur gi fas yéene wul organiser élection te dañ koy ñaawlu lu nguur gi fas yéene organiser suñu jógulee taxaw tem te wane suñu bopp lu mu fas yéene organiser le 23 janvier 2022 mooy lu ñuy wooyee une farce électorale mooy caaxaanu électo élection mais du élection te amul kenn ci ñun kuy nangu di dem ci élection te jotuñu ci fichier bi kenn ci ñun amul ci fichier bi te loi électorale bi lu mu wax dafa leer nee na ñuy organiser élection yi mooy waa Sénat ak ñuy compétir moo xam nguur gi wala opposition ñépp a bokk fichier fichier boobu nag da dañ dañ ko ndogo tamit gestu saytu ko mooy auditer ko ci même période boobu code électoral daf ñu may ñu am lu ñuy wooye période de contentieux mooy ñu bokkul ci fichier bi ñu mën leen seppi génn leen ak ñu mel noonu kon nag dama leen di may dama leen di ñaax rek ngeen déglu président Macky Sall mu wax leen naka nañuy dëppee keesu élection ak tamit naka nañuy saboter élection. Le découpage continue de belle. Depuis 2008, il y a eu une frénésie abusive du découpage, du découpage administratif. Et ce découpage a permis au PDS justement de gagner les seules collectivités découpées. donc c'était là la trouvaille pour 2012 ils ont créé 60 nouvelles communautés rurales depuis lors 60 nouvelles communes 20 arrondissements nouveaux 10 départements nouveaux alors le tout dans un méli-mélo indescriptible sans tenir compte des impératifs qui doivent sous-tendre tout découpage administratif puisqu'ils n'ont pas pris le temps simplement de faire toutes les enquêtes sociologiques, économiques, politiques, etc., pour faire des arbitrages justes. Au-delà même de l'aspect politique, ce découpage est porteur de germes de violence pour les communautés décentralisées. Le découpage vient leur donner le prétexte <clears throat> de remettre en cause euh, les, ceux qui ont, les électeurs qui avaient des cartes. Puisque dès lors que vous êtes dans une euh, collectivité découpée, excusez du terme, vous devez changer de carte d'électeur puisque vous n'êtes plus dans la même circonscription administrative. Mais, mais vous, vous étiez Et tout le monde sait, mm -hmm. euh, toute la gymnastique qui sera faite, les cartes de Djahao seront envoyées à Ranerou, et ainsi de suite. Les gens, au bout de 3, 4, 5 fois, ils vont se décourager. Ils ne voteront pas. Le fichier, c'est le registre où on consigne les électeurs. Ce registre, après, il fait l'objet d'un traitement mhm. pour dessiner une carte électorale. C'est-à-dire, pour redistribuer ces électeurs dans l'espace national, territorialement. Ce travail est un travail essentiel et il doit être transparent. Pour cela, il faut d'abord que le territoire soit stable. Parce qu'on doit étaler la carte sur le territoire. Mais la carte elle-même, elle est mobile. Elle géométrie variable. Chaque jour, jusqu'à la veille des dépôts, on peut modifier. C'est ce qui est arrivé en Il y a eu des localités où personne ne connaissait même pas les limites, mais des communautés rurales. Tout le monde les blocages systématiques qui ont été opérés dans la délivrance des cartes nationales d'identité. C'est indéniable. Il y a un blocage volontaire pour ne pas amplifier et augmenter le fichier, puisque pour eux, tout ce qui est nouveau est suspect, surtout cette jeunesse qui dit partout, il y en a Donc, il faut éliminer ces nouveaux inscrits. Il y a des faits qui sont de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Ils nous ont surpris une fois, le 23 juin, parce que nous ne nous y attendions pas, mais maintenant je peux vous assurer que c'est fini, c'est terminé. kon nag mbokk yi ñoo àndandoo dégluwandoo président Macky Sall kon wax ji leer na ci seen xel yi dañuy laaj rek juróom-ñaari question la ñuy laaj président Macky Sall bu ci njëkk kan nga fas yéene publier décret 2021 moom mooy fixé datu élection yi da ngaa jël décret wante ba tey publier woo ko journal officiel te décret bu ñu publier wul journal officiel daanaka décret boobu amul val amul benn validité ñaareelu question bi bu ñuy bëgg a poser président Macky Sall mooy kan nga fas yéene publier décret 2021 687 du 28 mai 2021 buy créer département wu Kër Massar bu ci tegu kañ nga fas tamit. publié décret 2021 687 du 28 mai 2021 buy définir limitu département yi nga xam ne ni ñu ngi ci moo xam Kër Massar moo xam Pikine moo xam Rufisque ak Guédiawaye parce que loolu yëpp dafa am solo parce que ci département yooyu ak ci gox yooyu dañu doon xoolaat carte yi réédité yooyu te tant que loolu amut mënuñu dem ci ay élection ensuite président Macky Sall kañ nga fas yéene am révision exceptionnelle des listes électorales parce que yow yow kese yow képp yow rek yow donc ak sa ministre de l'intérieur yéen daal xaw ma fan ngeen jaar wante ba ngeen dëppee kees ci élection président bu 2019 jot ngeen dugal ci fichier bi lu toll ci 400 000 électeurs xamuñu sax est-ce que ay doomu réew mi lañu kon nag loolu tegu leen ko ci benn yoon wante lu leen yoon santaane. mooy yéen kañ ngeen fas yéene organiser révision exceptionnelle des listes ndax xale yi primo votant ñu mën a dem bindu ji juróomeelu question bi mooy réédition des cartes d'électeurs pour département bu Kër Massar ak commune ñu ngi daal di redécouper kan nga fas yéene defaat carte yooyu ndax ñooñu mën a bokk ci fichier bi ñu mën a wote juróom-benneel question bi mooy. kañ nga fas yéene collège électoral bi mooy ne nga da ngay organiser élection wante kañ nga fas yéene convoqué collège électoral bi te loolu am na solo ci suñu xaat bu gàtt bu ci tegu nag mooy kañ ngay fixé daanaka ci code électoral bi concertation pour ñu mën a toog ñu waxtaanee lu mel ni fixation du montant de la caution bu ci tegu tamit. bu leen ñëw ne ñu da ngeen ko waxtaane woon ci dialogue politique parce que dialogue politique boobu ci ay caaxaan la woon dañuy laajte est-ce que day am parrainage wala du am parrainage kooku dafa am tamit solo ci suñu xalaat bu gàtt kon nag mbokk yi lu ngeen gis lii yépp ñuy toog di ko ñaawlu parce que fu ñu jëm ndox taawu fa te président Macky Sall nee na moom day wootee defante ci defante boobu nag ma bëgg yee ci askan wi seen doomu ndey Ousmane Sonko moom dañ ko bëgg a faagaagal su ma baat ci kaw ñoom lu ñu jàpp ñoom mooy daanaka éliminé nañu Karim Meïssa wat éliminé nañu Khalifa Ababacar Sall lu leen dese tey mooy éliminé kii di Ousmane Sonko yéen su ngeen taxawulee yéen askanu Sénégal particulièrement yéen ndawi Sénégal yi balaa ñu génn ci weeru septembre laa wax su ngeen ci taxawulee. dinañ def ci Ousmane sonk lu ñu nama def ci Ousmane Sonko te loolu kenn du ko nangu parce que loolu jekkul ci démocratie démocratie ñépp ci nar bokk kon nag mbokk yi fu may daanalee mooy lépp yokku lépp yokku te loolu dafa jéggi dayoo loolu daanaka ci gàttal fu président Macky Sall di dem di wuti ji lu mel ni roplaan muy yokk njëgu dund bi biir Sénégal kooku xel mënu ko nangu moo tax ñu leen di ñaax Euh, woote bu M2D woote ajjuma bii mooy le 11 juin ak euh, le 23 juin buy ñëw na ngeen jóg ngeen taxaw tem parce que taxaw tem jot na jot na te xeex bi du xeexu politique xeex bi xeexu citoyen la xeex bi xeexu askanu Sénégal la kon nag ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di biralaat wax ji nag su ngeen jógulee su ngeen taxawulee président Macky Sall fas yéenewul organiser élection locale su koy organiser tamit lu mu fas yéene organiser mooy ay caaxaan pour dëppaat kees te wax naa ko di ko biralaat fii troisième mandat dañ ko fiy tere deux mille vingt deux élection locale moo noo am ak élection député ñaari élection yooyu moo noo am ci deux mille moo tax ñu ngi ñaaxaat opposition bu Sénégal ci yar ak teggin no xoolaat taxawaayam no xoolaat taxawaayam no xoolaat taxawaayam parce que du loolu la askanu Sénégal di xaar ci moom di gërëm ñëpp di sant ñëpp te ñu ngi leen di ñaax. main dans la main, marchons ensemble vers l'essentiel. À vendredi, Inch'Allah, le 11 juin, à la place de l'obélisque.